yéen mbokk yooyu yi fi nekk di sama mbokki taalibe ngeen mbokk ci mbokk ci njabootu Sëriñ Tuubaa tànn ngeen nekk ci liggéey boobu ngeen xam ne ngeen xam ne ñoo ndigal ci yéen ñooñu yëpp ku ci ne am na ndigal ci koo mën a jottali yi sa sa sañ ko koo jottali noonu noonu noonu rek la demee ndax moom ndigal la ndigal la am la kenn ku ne sañ daal boo xam ne sart yee sañ na ko dafa jëfandikoo waaye nag eh, dañ dañ ciy dolli kon ni ngeen ko bëggee dañ ciy dolli mu ndigal la xaalis kon dolli nañ ko ci bu baax yéen ñoo ñii ñëpp kenn ku ci am na am na ndigal ci kaw ku mu ko bëgg a jotal mën ko jotal waaw ah, mën ngeen ko jot gën gën ko jot lente ah, noonu noonu rek la demee jërë ngeen jëf waaw mbokk yi dégg ngeen li xalifa bi wax ñun dañ doon sax dañ ko ko waxoon rek waaye moom ci xërëm mu far def ko ci audio bi ne nañ ko jottali ñépp bi nu nit ñi waxee fii ne dañoo bëgg a jot wirdul maxuus lu war a mat juróom benn téeméeri nit bindu ñu ne leen ñun sañuñu ko balañ koo sañ sañ bi da koy digle lu ci sëñ bi wax ñu dégg bi nga xamee ne yabal nañ fa sëñ Muntaxa Pakal mu demoon fa ba mu demee ci sëñ bi mu wax ko ne ko loola lu mën a nekk la loola booba ban ko déggee it teewut dañ ne nañ bind rek buñ noppee yóbbu ko ca moom bu ko xoolee lum ca wax ñu def ko waaye nag loolu lépp doyu ko mu far enregistré ko ñu def ko ci ojo bi mu waxal boppam ne moom ku ko am ku ne sañoon nga koo mën a jox keneen waaye nag yéen am ngeen ci ndigalul xaas nag seen ndigalul bopp loo xam ne man maa leen ko joxal seen bopp kon ñi ko jot ñëpp maa leen ko joxal seen bopp ndigalul xaas la kon ñi ko jot ñëpp nañ xam ne moom moo leen ko joxal boppam du ñun du kenn Cheikh Mourtala moo leen jox wérul maaxoos bi waa si rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñi fi nekk ñëpp mën nañ ko jot tey waaw ambake